muy suñu réew muy Sénégal muy li nga xam ne suba suñu ay doom lañ ko war a jox muy li nga xam ne suñu ay maam dañu ñu ko jox muy dëkk démocratie boo xam ne ay nit ñoo xeex ba mu agsi fii tey projet boobu la Macky Sall taxaw ne da koy faagaagal ma ni ko di nga jéem waaye doo ko réussir lu tax du ko réussir ndax dafa jàkkaarlook une nation dafa jàkkaarloog un peuple déterminé dafa jàkkaarloog ki nga xam ne ku sañoon mu dëkk sa dëkk muy la président Ousmane Sonko. Ah. le président Ousmane Sonko bi nga xam ne ku ko jëloon teg fa sa pap ku ko jëloon teg fa sa yaay ku ko jëloon teg fa sa frère ku ko jëloon teg fa sa doom xam ne liñ ko teg metti na te du dëgg du yoon li ñu teg Ousmane Sonko kuñ ko tegoon ci Sénégal nga daw mu taxaw ne damay taxaw jàkkaarloo ak ñii li tax ma koy def utuma ci dara liggéey naa 15 ans impôt et domaine jëluma fa dërëm te Ousmane Sonko su ko neexoon tey toog si mu toog lépp fekk si ko li tax muy xeex Sénégal li tax muy xeex suñu ëllëgu doom li tax muy xeex injustice li tax muy xeex démocratie li tax muy xeex Sénégal bu gën Sénégal bi nga xam ne ñun ñu ngi fiy dund kon nag li may laajte mooy ndax Ousmane sonkoo daf ñoo war a gën a gore ndax Ousmane Sonko dafa war a nekk ki nga xam ne moom kese mooy xeex wala ndax Ousmane Sonko dafa war a doon ki nga xam ne dañ koy bàyyi ñu sacrifier ko ndax Ousmane Sonko dafa war a doon ki nga xam ne daf ñuy rëcc ni ñu Cheikh Anta Diop rëccee daf ñuy rëcc ndax ni ñu Mamadou Dia rëccee man de Khadija du ma bàyyi mukk Ousmane Sonko di ma rëcc du ma bàyyi mukk un leader de la trempe de Ousmane Sonko du ñu bàyyi mukk un leader de la trempe de Ousmane Sonko et un projet politique comme Pastef un projet bi nga xam ne tey ce sont les sénégalais qui l'ont épousé ndax lii ñuy xeex nekkatul combat wu parti li ñuy xeex nekkatul combat wu coalition li ñuy xeex combat la pour une nation li ñuy xeex combat pour un continent ku nekk nag fekkee te fekkee moo leen ci boole kon maa ngi woo sénégalais yëpp maa ngi woo góor ñi maa ngi woo mag ñi maa ngi woo jigéen ñi surtout maa ngi woo xale yi ñu xam ni suba nettali day am te buñ koy nettali yal nañu bind suñu tur ci ñi nga xam ne dañoo taxaw ne déet ñi nga xam ne dañoo taxaw résister surtout ñi nga xam ne dañoo xeex ngir ëllëg suñu ay doom am Sénégal ah. gën Sénégal bi nga xam ne la ñuy dugg vive le président Ousmane Sonko vive le leader de Pastef vive les patriotes et vive un Sénégal nouveau avec une génération qui a décidé d'écrire son histoire ah. sans le président Macky Sall à partir de 2024